mu doon li nga xam ne ni dañ ciy jaar ngir ràññee nit ki ci giiru dundam buy gane si àdduna buy tàkk jabar wala sax muy génn àdduna faw rek ñu jaarale ko ci kayit yi nga xam ne ni moom la ñuy wone li ni mel waaye bërëb yi nga xam ne ni moom lañuy toppatoo toppatoowee mbir yooyu dañoo yàgg jànkonteel ak i jafe-jafe yu bare. comme ni ngeen ko xamee président de république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye bañ ko fayee bokk na ci priorité yi mu lépp lu état di defal citoyen bi muy maanaam service public bu ñu koy def ñu defee ko ci xarala yu bees yi. ngir gën a méngale ak jamono wutum kayit yooyee ñu soxla ay jumtukaay yu bare. tey li ñuy séddale dina tolloog ci 1200 ordinateurs 1000 imprimantes des ay serveurs ak équipement boo ko xaymaa mën na toll ci 1 milliard millions de francs CFA. mu di mbir moo xam ne nii Union européenne. lu nu mel ci jàppandalu budget bi ñu jagleel jeunesse bi te li koy firndeel mooy yokkute gi ñu nemmeeku ci nga xamante ne dañuy ñëw di bindu ngir am kayit. yii la jumtukaay yi nga xam ne ni moom lañ jox maire yi doon li nga xam ne nii ñoom bég nañ ci lool. parce qu'elle contribue justement. waaye loolee day gën a renforcer wàllum état civil waaye tam ci capacité. ngir ñu mën def suñu liggéey ca na mu waree. faire le travail convenablement. waaw mesure boobee daal day tax rek lu ñu duppee wàllum équité territoriale gën a am solo waaye tamit ñi nga xam ne ñooy ay communauté rurale daay tamit tolloo comme ñi nga xam ne ñooy ay communes urbaines. ñàkkum kayitu xàmmeekaay mu di kayitu juddu bii firndeel tàkk nañ jabar ak yeneen yi ni mel day tax ba mu jafee ci nit ki mu mun a jot ci yenn services yi lu ci mel ni ci wàllum wér-gu-yaram ci njàng mi ak yeneen yi ni mel ba tax na ajaarale xibaar yooyu ci xarale yu bees yi day tax ba ñëpp mën see jot yombalal yoon bi te it aar bu baax suñu nataal